bismillahi irrahmaani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi yéen ñi saxoo daara ji Vision leen di siyaaru baax a baax di leen ndokkeel ci weeru koor gi tey jii di guddi ga juróomeel ah, képp koo xam ne dañ ciy julli ñeenti rakaa bu ci ne fatiha fatiha ginnaaw fatiha alam nashrah ak qul huwa allahu ahad li ci ne ñetti yoon kon ñeenti rakka lay doon ñeenti rakka na kon ñaari sëlmal lay doon rakka bu ci ne ginnaaw fatiha nga tari alam nashrah ak qul huwa allahu bu ci li ci ñetti yoon nee na képp def lii day danga mel ne ku xaj màkka junni yoon omra junni yoon te dees na ko musal ci ak ñàkk te kon dees na ko musal ci ñàkk yàlla saa borom muccal si ñàkk te defal ñu wërsëg des na ko dolli wërsëgam te it yàlla dana dolli wërsëgam taarawu ci ne des na ko ci bindal ñaari malaaka yuy far ay bàkkaaram ay ñaatifam ay bàkkaaram di bindi ay yiwam ak yeneen ak yeneen yeneen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu